privé Cheikh Mor Thioune nekk ci Touba quartier Xayra amal nañ première édition cant annuelle di cant goo xam ne mboolem élèves yi nga xam ne ñoo nekkee ci cours privé bi ñoo ko taxawal ànd koog directeur bi personnel enseignant bi ak ak parents d'élèves yi. objectif bi mooy responsabiliser xale yi kon ni ko sëñ bi waxee ci waxtaan wi fexe ba ñu doon ay mag ñoo xamante ni dañuy am si ñoom yaakaar ndax ëllëg ñoo yoru réew mi ñoo yoru kër yi ñoo yoru quartier yi ñoo yoru dëkk yi kon jot na nag. lépp loo xamante ni day organisation ñu war leen seen nàmpatal te ku gis rek tey jii ni ñu organiser bis bi nga xam ni wax dëgg yàlla mënees naa rafet njort ci ñoom bu baax a baax. cours privé Cheikh Mor Thioune di cours privé d'excellence boo xam ne bi ñu ko taxawalee ak léegi at mu jot ñu def ay résultats yu baax lool ci diwaan bi mu am cycle primaire moyen ak secondaire. waaye cours privé Cheikh Mor bi mu sosoog léegi si juróom benn at lay war a toll. mu tàmbalee si juróom-ñetti élève mu doonoon liggéey bu metti lool ñu wéetoon ci lool waaye di ci fàttaliku suñu jàmbaar ja Serigne Saliou njurul Serigne Saliou ibn Cheikh Abdoul Ahad mu ñaax ñu lool jàpp nañu si lool ci jamono jooju yëkkati koppar yu bari jox ñu nañu tàmbali leen ci sax xam ne liggéeyal Serigne Touba kon école bi ñaan gu nangu la ñaan gu nangu googu nag moom moo yegg ci fii. kon ñi ngi ñaan mu baawaan si ñëpp lépp loo xamante ni waajur mi ngi koy séentu si njabootam ñi ngi ñaan ci barke Serigne saaliwu ci barke Cheikhul Khadim élèves yi jàngee fii bu leen si kenn jiitu. ndax am nañ ci ñoom yéene lool lool lool. parents d'élèves yi confiance bu mag la ñu am ci cours privé Cheikh Mor Thioune confiance boobu li ko indi mooy lépp lu ñuy xaar ci cours privé bi ñu ngi koy gis muy taxaw seen doom yi ci am njàng mu wér yar ak résultat yu baax. man la Mouhamadou Lamine Diop euh, di parent ci école bi di Cheikh Mor Thioune maam fi samay doom yi fiy jàngee vraiment école bi am na solo lool lool lool te wax dëgg fa gis nañ ni. école bi am na directeur bu dévoué bu bëgg liggéeyam mais aussi am na ay enseignants yu bëgg liggéey ndax man depuis quatre ans cinq ans samay doom fi la ñuy jàngee comme ni ma ko waxoon sànq am naa sama benn doom boo xamante ni fii la amee BFM vraiment ma gis si aussi évolution ak euh, jàppandal boo xamante ni am na solo ndax euh, euh, enseignants yi bëgg nañu élèves yi bëgg nañ jàngale bi te ñu ngi góor góorlu ndax dañoo nekk euh, si situation bu difficile nekk ci cadre bu difficile muy fii Touba nga xam njàng mi dafay xaw a tumranke tuuti kon bu ñu amee lu mel nii yàlla dogal ñu dem ba mu egg fii dañ ci sant yàlla bu baax a baax waa kontaan nañ bu baax vraiment ci jàngale bi ñun parents d'élèves yi quoi kontaan nañ ci bu baax a baax di ñaan yàlla aussi école bi gën a yokku gën a développé di ñaan état aussi mu jàppale leen bu baax a baax a baax waaw mu jàppale leen bu baax ndax dafa metti dafa metti quoi ndax xam na ni enseignant yi fi nekk bëgg-bëgg bi rek moo leen fi bàyyi mais du koom gi quoi ndax liñ leen di fay xam naa ne demul noonu kon na leen état jàppale bu baax a baax. parents d'élèves yi dama leen koy wax à chaque fois saa bu ñu amee réunion ma ne leen école bi ay bâtiment kese la bu parent yi bu bu élèves yi bu bu bu jàngalekat yi ñëwoon taxaw it day doon bâtiment bu ay jàngalekat taxaw kese waaye bu parents yi amul woon confiance. ci jàngalekat yi dénkuñu suñuy doom kon école du mën a taxaw kon lu jig njaag la rek ñoom ñooy njaag muy parents d'élèves yi amuñ seenu fay. ñun nag jàngalekat yi leen dong lañ mën a def mooy fexe ba confiance bi nga xamante ni parents yi am nañ ko si ñun ñu fexe ba saa ne rek ñuy gis résultat ci li ñuy yaakaar si ñun résultat weesuwul nag lu dul seen doom yi nga xamante ni ñoom lañ ñu dénk muy ñu yar leen suñ kemt lay kàttan comme ni ñu yaree suñu njaboot ci biir kër gi. waaye lépp lu ñu xam ci xam-xam rek ñu yéene leen ko yéene leen it fu nekk ñu mën fa yegg yàlla na ko suñu borom def bu baax a baax. lu nga ne daara ji taxawal bisub tey bii seetlu nga ne ab yar am na fi loolu nag dëgg la ndax baas bu toll nii ay xale yu toll nii nekk fi te seen coow ëppul génn ëpp gi wax dëgg yàlla loolu ab yar la. résultat yu baax yi bu ñu ko amee ci cours privé Cheikh Mor Thioune jàngalekat yi am nañ ci taxawaay bu ràññeeku. dëgg la confiance bi rëy na lool ndax ñoom ñi ñëw jox ñu seen njaboot mënuñ leen a fay waaye it am nañ jàngalekat yoo xamante ni 100 pour cent yëpp ñi ngi koy def seen kéemtalaay kàttan ngir xale yi kon nag leen dong ci des muy ñaan ndimbalug suñu borom ba lépp loo xamante ni yéene nañ ko suñu borom def ci dogalam mu sotti si si jàmm. mënuñoo ñàkk beral ak cant kenn ci personnel yi koo xam ne mooy monsieur Elimane Guèye bi monsieur Guèye mënta ñàkk ndax li ñu boole dafa doonul école bi dañoo yaroondoo màggandoo bokk ay bëgg-bëgg ba ñu doonee ay tout tànk ba léegi dara musu see deñ mu am engagement boo xamante ni fu ma nekk sama xel day daal ndax man dimbalaay soo soog a dakaar boobu ba léegi cant gi nekkuma fi mu nekk fi a xale yi di coordonné lépp dara manqué wul ndax musuma koo bàyyi sama ginnaaw ba am lenn lu may xalaat damay jàpp ne sax ni mu koy defee mooy raw man su ma fi nekkoon ni ma koy defee. ndax mu doon nit koo xamante nit ku am engagement la nit ku dëggu nit koo xamante ni lu mu nekk da ciy dem à 100 pour cent sa loolu moo am solo sëriñ bi dafa wax lu am solo muy jàngale mënta ànd ak nooflaay. jàngale mënta ànd ak nooflaay xale bi boo ko bëggee yar bëgg a def ci boppam xam-xam munoo ànd ak nooflaay classe bi du nooflaay boo wàccee doo nekk si nooflaay bu nit ñi di nelaw doo nekk si nooflaay ndax yaa ngi xalaat xale yi am ay jafe-jafe xale yi am ay lacune nan nga koy nan nga koy lijjantee diw sàngam dafa am problème si matière sàngam nan laay def jàngalekat bi 24 heures sur 24 bu fekkee def na mission dëgg-dëgg ni mu ko war a defee 24 heures sur 24 du noppalu. cours privé Cheikh Mor Thion nekk ci Touba quartier Xayra taxaw temm ci am njàng mu wér yar gone yi yée leen bu baax a baax ci àddina waaye chaque année ñuy am résultat yi gën ci diwaan bi. cours privé Cheikh Mor Thion ñoo yëgal parents d'élèves yi ne inscription yi ak réinscription yi pour année scolaire 2022 2023 door nanu ko mën ngeen ñëw ci cours privé bi nekkee ci Touba quartier Xayra. wala ngeen jokkoo ak ñoom ci numéro téléphone yii ngeen gaaw ñëw ndax nombre de place yi dañ ko limité. cant gi nga xam ne nag moom lañ amaloon nekkoon première édition bi amal nañ njàngum alxuraanul karim njàngum xasida ci rajas durus ak kuréel ay bernde ak waxtaan yu am solo yoo xam ne lépp jëm ci gën a yee élèves yi ci àddina ak seenum njàng